tey ñu ngi fii ci Médina diggu xolu Médina muy réussite ànd ceeg Bamba Lumière mi nga xam ne fa tubaarikàlla ku bëgg lu leer ku bëgg ay xeetu baax baax pour taaral kër loo xam ne day leeral kër lampe poto loo bëgg rek ñëwal ci Bamba Lumière waajaa ngi gorsaa ngi ki nga xam ne bu sàjjee lépp leer cëm laaw la cat catalati incha allah fa tubaarikàlla mooy ni ma leen ko waxee ku bëgg xeetu baax baax ku bëgg ay xeetu kër lamp kër lampe macha allah bu poto lamp lampe quartier lampe yoo xam ne day dem ci piscine loo bëgg rek ci xeetu baax baax wooteel waa Bamba Lumière war nga daagu ba ci rue seet si Bamba Lumière boo fa ñëwee am fa xeetu baax baax ah kii mooy seexu yàlla bi kii kan kii baylaat baylaat ziar naa la nuyu naa la. waaw ah, delloo ziar Assane ñoo ngi lay ziar bu baax a baax a baax. di nuyu di la nuyu ak sa caméraman bi ak euh, sit bi waaw. ñoo ngi fii ci Rue 6 Rue 6 angle 23 Médina. baylaat gis nañ ni macha allah fa tubaarikàlla ku pare sa kër gu baax sax mbaa nga yor chantier doo xalaat lu dul Bamba Lumière gis nañ ni ñu ñu fiy duggee di génn ku ne ku bëgg lu baax rek gis nañ ñu fi gars di gaaree di jël si bagage yi lan mooy seen secret. waaw xanaa qualité rek ndax lumière Bamba Lumière lañ wax gis nga boo ñëwee fii boo boo amee sa kër boo ñëwee fii lépp luy xeetu lampe mi ngi fi. piscine sax boo boo ko amee boo ñëwee fii ma am naa ay esport sof yu ma la jaay gis nga lamp yaa ngi nii am naa ay ampoule chambre ampoule coin ah, ak lissure yoo xam ne day dem si saa ak i projecteur yëpp am na fii boo dikkee fii si Bamba Lumière man bi ma dugg see dama tiit dugg naa boutique buy jaay ay làmp ak ay xeetu ampoule mais dama yii ma gis ay façon man yii maa ngi koy doog gis xeet gi man ba ma juddoo ba léegi maa ngi koy soog a gis musuma gis de dama defoon ne sa Dubaay laa ne. waaw fii fii rek na nag fii si Bamba kese am amut feneen waaw yéex ñàkk ba ba mbëti réccu yaa ma gën a xam déggal loolu koo koy Seexu Bamba bàyyi laat fa tubaarikàlla macha allah xoolal ma xeetu baax baax yi buri jëlal ma yi xoolal ma xeetu baax baax yi nga xam ne fa tubaarikàlla amul fenn ci réew mi fudul ci Bamba lumière mi nga xam ne moo leeral lépp leeral yoon wi kenn du moom waaw boo boo ko bëggee nag numéro bi 77 la 757 98 85 wala 77 757 98 85 wala 77 833 53 02. dégg loolu. fii ci Médina. lampe bi moom mooy ban. waaw bii rissure la ay rissure la ñu am fii am nañ benn am nañ bii quatre branches la. am nañ fii par benn benn yoo xam ne ay benn branche la. ak ampoule chambre yi ak ampoule coin yi tamit am na fi. projecteur redd yi moo nekk nële. moo nekk nële moo nekk nële yi. yi redd yi la yi mooy dem ci mbedd buntu kër yi te en plus redd la day économiser courant gis nga am pour kii yi tamit rissure sauver yi yii yëpp am na fi boo ko bëggee rek ñëw fii ci Bamba Lumière te li ma gën a jaaxal ci lamp yi man làmp yi mu fi gis yoo xam ni solaire la dafa mel ni naaj bi moo koy jox courant waa kii xanaa mooy ndimbal njaboot waaw gis nga de te du moom moom boo ko xasee balance rek jeex na naaj bi moo koy dafa am heure boo xamante ni ci nga koy limité bu heure boobu jotee rek day déclenché bu déclenché bu heure boobu jotaatee sa kii ba day fay. Eh waay Samba waa xanaa du yéen a pare <laughs> yéen da dafa mel ni Dubaay ngeen ñu indil Dubaay de la ñu indi ci diggu réussite bi Dubaay ak ay lampam moom la ñu indil ci réussite bi. waaw gis nga loolu lañ fa am gis nga projecteur red kii lanterne red yi boo ñëwee fi moom du économie si courant am na am na benn bët trois bët bi ak quatre bët bi ba si cinq bët bi moom moom du économiser dara moom mooy dem ci mbedd yi léegi yu njëkk yi dañ ko sensé parce que yi mooy gën a économiser courant bi mooy waral ñu siy def yii. man li ma ci gën a jaaxal leer gu mu leer ba pare dafa mel day yokku da ngay am fooy bës muy gën a yokku lampe leeraay gi di gën a yokku. non boo taalee lu muy gën di muy gën di tàng di gën di yokk bi di di gën di yokk waaw noonu lay gën di yokkee di dem di dem di dem waaw macha allah fa tubaarikàlla ak moo pare macha allah kenn demul ba ko ana looy tàggatoo ak looy gërëm ñu ñuy seetaan waaw xanaa di gërëm ñëpp rek di sant ñëpp waaw te di leen waxal ni fii raam fii Médina rue 6 angle 23 fii ci Bambilor ku fi ñëw bu soobe yàlla di nga kontaan di la gërëm bu baax a baax yow Assane di la gërëm ak ak sa caméraman bi ak siid bi waaw ñu ngi rafet du site bi tamit bu baax a baax a baax ñu ngi koy rafet rafetlu. kon ñun ñoo gën a bëgg naa leen ko fa tubaarikàlla waajaa ngi nii bu sàjjee mu neex kenn demul ba ko jiitu na leen sànni caravas daal leen jël bu kenn dootul miin xanaa du moo leer xanaa du moo pare quelle Bamba lumière sa Dieu vous